bu ñu ko joxe un dossier day enquêté. Mhm. day enquêté enquête yooyu muy def muy audio ak muy aveu keneen ak keneen du tax du tee mu def enquête am moom. Mhm. ba li mu war a décider mu décider ko. loolu loolu y' a aucun souci par rapport à ça. mënu ko tënk sa bokkul ak ñu ne Ami Collé Dieng wala xaw ma kan. ci audio lañ ko jàppee. loolu le procureur mën na ñëw dégg Moustapha Diop def audio wax lu ko neex il ouvre nu mu ko neex. Mhm. mais li am solo ci yox na loo. mooy fii ci réew mii Sénégal gii mm. euh, suñ doon xool tey ci lan la président Macky Sall échoué fow nga cité justice mm-hmm. ak li ñu wax les mœurs politiques waaye foofu Moussa est-ce que mën naa terminer est-ce que mën naa terminer d'accord mm-hmm. soo jëlee ci wàllu justice fii Sénégal yow nekkoon nga ak président Macky Ablaye Wade mm-hmm. am na ay DG yoo xam ne moom Ablaye Wade moo leen nommé gannaaw yàlla moo tax ñu nekk li ñu nekk des organes de contrôle de l'État du Sénégal épinglent leen waat def leen ci ñu def leen ci kaso bi. c'est la vérité je peux les citer ça. je les depuis douze ans. depuis douze ans wala dix ans. Mhm. que Macky Sall est à la tête de l'État du Sénégal. mësoo mhm. dégg un début d'enquête jëm ci ku ku ñu dénk ay ay ay ay deniers ci réew mi mu koy gérer c'est pas suspect. mais ma tontu. oui oui. xam nga euh, bi première question bi nga jëkk a wax euh, nga ni. li nga li nga li nga jëkkoon wax ne par exemple président Macky Sall. non je dis président Macky Sall daf mu ne ci bopp Ablaye Wade d' abord. waaw euh, bëgguma lim ay DG parce que ñi ngi fii di dox seen soxla affaire justice la woon tëj nañ leen kaso purgé nañ mais xam nga leen xam naa leen. Mhm. Ablaye Wade. ci nguuram jàpp nañ ci tëj. non voilà fi nga jëkk a tàmbalee dama ne leen les euh, organes de contrôle yi ñoom Pape Mokhtar di tudd. ñu leen épinglé ñu jàpp leen tëj ci kaso bi. non fi nga jëkk a wax da nga ne. oui Thierno war nga mën a reconnaître que président Macky Sall bi mu fi nekkee ba léegi. Mhm. justice bi dafa sooxe. oui li mu échoué bokk na ci justice ah, voilà na ci. xam nga boo ma dégloo. Mhm. sama départ émission. Mhm. dégg nga ma def une critique que j'ai adressée à l'État par rapport à la position du parquet. dégg nga ko mais dégg ko émission bi. ma ne la. Mhm. j'ai dit que le parquet aujourd'hui mhm. subit des pression d'opinion et de groupe. Mhm. ba du autosaisir d'une part pour régler de question qui perturbent la République. opinion et de, de, de, des opinions et de groupes kii ñan. mais des, des opinions de groupes ça veut être la la la la, société. les groupes qui sont constitués pression bi ñuy def ci juge. le pouvoir ak affaire yooyu l'exécutif déglu ma déglu ma. xam nga xam nga parquet. ñoo am na ñoo xam ne dañuy dépendre directement di président la république. oui xam nga dañ leen di wax def leen ñu def defu leen ñu def. rek la nga problème am na ay juges yu fa nekk yoo xam ni yii aussi. Mhm. dañ fa nekk di gérer ay dossiers di subir ay pressions. ca man je dis. Mhm. que bi ñu toll nii ci Sénégal. Mhm. parquet bi ci boppam warut a subir benn pression dafa war a jouer rôle ku war a tegu ci ku ñu war a jàpp ñu jàpp la ku war a bàyyi ñu bàyyi la. parce que di bàyyi nit ñi def naka sa dul noonu nga leen di bàyyi ñuy ñibbi di ko ne di ko def tous les jours. Hmm. c' est un danger pour le pays. d' accord nit day toog nan def pour am parquet boobu. parquet bi nga xam ne du subir pression exécutive damay dem ba ci loi cybercriminalité bi nga xam ne bi la voté nañ ko. Hmm. dañ ko war a appliquer mais comment est ce que vous nekk dans un pays bëgg mu nekk réew muy am jàmm nga toog bàyyiwuñu tarixa bàyyiwuñu sëriñ heure boo ubbee sa téléphone. Hmm. saaga ndey suba ba ngoon. weeru koor yu sax. respecté wuñ ko. fortune saaga ndey directement waa ji toog nii nga di ko xool bu jëkkoon tu fais les choses dans la clandestinité mais léegi da ngay toog téye toog ci télé bi d'accord na ak yow di valider di ñàkk teggin nit ñi mel ni yow tu es un juge yaa war a juger nit ñi te buñ la ubbi woon hmm. li ngay def yëpp nga jekki-jekki ñun ko ubbét hmm. ñi ngay joxe ñoo la gën fuuf Mm-hmm. mais ñooñu ngay wax mais ñooñu ngay wax euh, ñooñu ngay wax. ñooñu ngay wax doo leen wax rek doo leen wax rek ba pare dem. déet pare gu ma euh, d' accord ñëpp d' nañ ak yow. waaw ci ni kenn euh, d' ailleurs ñu koy waxtaanee. bi ñuy dugg fii kenn amul droit waruñoo man awma droit. toog parce que am naa téléphone. taxaw di di wax di di di yàq ci. maas lu ma neex di yàq sëriñ bi lu ma neex. di yàq président lu ma neex. d' accord nañ ci ak yow. waaw nga ne parquet bi dafa war a régler ces problèmes là sans subir aucune pression. ak la loi sur la cybercriminalité. d' accord qui mais parquet bi. waaw yaa ko wax léegi. ma wax la dafa dafa dépendre directement ci ministre de la justice. oui ñun ñoo ko wote. muy exécutif waaye léegi man kay ma question mooy comment faire pour que parquet boobu. ni nga bëggee muy dal ci ñoom bité ak ñoom coro ñiy def live yooyu. mu koy dale ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne ñi ngi ci nguuru président de la république te def yu jubati. waaw Moussa foofu laay soo ma tegaloon fii benn dossier. Mhm. bu leer nañ ma xool ko ñu ni directeur bi ñu ko def sàcc na lii sàcc na li mu leer nañ samay bët. Mm-hmm. man Thierno Lo dama nan ko dugal ci kaso bi. liiroo rapport OFNAC ci waa ji jaay ñebe ji. ñebe ji man. mais Thierno Lo fu mu nekkoon. mais nag du ma liir lépp man wax dëgg yàlla rapport buy jaay ñebe ak sama weeru koor wi gisuma ko. rapport. vous êtes dans le dans dans la majorité présidentielle. baal ma expliqué la baal ma expliqué la kay xam ma ko wanee man ma na dëgg wax nga ko jiitee moo dem ca COUD def fa enquête. waaw gis ne waa ji nekk ministre de l' enseignement supérieur. Hmm. na mu ko yore dara baaxu ja waaw bokk na ca kilo ñebbe mu jënd ko mille francs hmm. waxuma nag ñoom yéet ak géej ak yay ànd yëpp. of nag ne waa ji nañ ko topp poursuivre ko ñu jox dossier ba Bassirou Gueye procureur de la république Macky Sall jël waa ji def ko ministre de l' enseignement supérieur maanaam mooy patron wu sax fañ waxee ne fa la mbir ma nekkee léegi nga ne yëgoo loolu. waaw Bas déet Moussa. Hmm. mën naa laa wàttal ak sama koor gi. Mhm. man gisuma rapport boo xam ne bii ñebe jii ngay wax moo ca nekk. mën naa laa wàttal ne xaw ma déglu rek xaw ma dossier bi. am nga ci droit gisuma ko. Mhm. mais c' est pas parce que je suis un allié même si j' étais un ministre yi ma toog fii ak yow. Mhm. nga posé ma question bii. du ci prononcé wu parce que gisuma ko. defuñu ko un dossier du conseil des ministres wax ko ba nga ne mënuma koo bañ a am. je suis pas un ami du procureur. nekkuma off nag. Mhm. doomam wax benn affaire ma dégg ko te gisuma ko ma ciy wax. mais rapport of ngi ci mbedd mi. waaw jox ma ko. bu dee loolu am na nag bu ngi jégalu de <laughs> tey bu doon loolu a teer à hmm. bu doon am na maa ko def mu leer la nañ lan lañ ma war def non ku mën di doon bis moo mën indi rapport boo xam bi mal gouvernance moo ci nekk man Thierno Lo soo ma posé question dama kii nañ ko yóbbu ñu tëj ko ci kaso d'accord léegi damay ñëw ci lu gën a teer ci lu gën a teer à teer que mi ngi wax naan jikko yi ni mu soppeekoo nit ñi di nekk ci lu leen neex ba ci ay live sax ñu koy def ñii di saaga ak leneen ak leneen. ñëpp boo fi nekkoon yow ñëpp da leen ñaf ci kaso bi. mais mais li woon su woon ne. yow ba